kii na. na si kër si dëgg. allez sa bëri jërëjëf. sëñ Babacar Ndione bu ñu waxee kër Cheikh Abdou Karim faw ñu tudd Baye Fall yi xam nañu seen taxawaay seen liggéey ñu bëgg a xam taxawaayu Baye Fall yi ci bis bu màgg bi 18 safar ci ginnaaw Cheikh Abdou Karim. loolu sax xam naa dañ fee nekk rek def ko ci turu sëñ bi waaye dafa am jëmm yoo xamante ni sëñ Abdou Karim bi mu dajalee ay Baye Fall taxawalee ay Baye Fall daf leen cee jiital ku mel ni Diorin Ndaw Euh, loo gis ci Baye Fall ci biir kër Serigne Abdou Karim Serigne Fallou maanaam mooy sa kilifa euh, moom ak ñi nga xamante ni ñoom la ko seqal ku mel ni Diorin Lamp Fall Diorin Mouride Mbaye jàmbaar yooyu Diorin Babacar Niang Diorin Omar Diagne Diorin Abdou Aziz Niang jàmbaar yooyu nga xamante ni seen yëngu seen dal yëpp sëriñ bi la euh, ñooñu ñoo yilif Baye Fall ak ñi ci seen ginnaaw ñu ñu di leen sant bu baax te di leen ñaanal ndax ñun fii dañ leen fee nekkal waaye ñoom ñooy sunu lépp ginnaaw bi ñu tënkoo ci jëwrin Abdou Ndaw ba noppi ca kaw jëwrin euh, jëwrin jëwrin sëñ tubaa Sène moo dox suñu diggante ak président Mamadou sekk nga xamante ni président Mamadou Seck moom moo dox suñu digganteek ak sëñ bi ñun ñëpp muy bàyyi faal ak ku doon bàyyi Fall ñun ñëpp rek ñu aju ci moom di doxal waar wi nga xamante ni nag moo ci waaru Baye Fall ci màggal gi loolu moom dafa yaatu ndax sëñ Abdou Karim ci euh, jëmi boppam mooy doxee doxinu Baye Fall loolu doxinam la da koy wàll sax gaa ñi nga xamante ni dañ fiy ñëw bari na waa ne koo xamante ni yaa ngi koy gis tey jii mu saf sàpp ak Baye Fall ci doxinu Baye Fall ci kër gi bi mu fiy ñëw indaale ko dafa dafa càmbar sëñ bi gis ni muy doxalee ba tax moom mu sofu ci loolu mën nañ cee lim ñu dut jeex soxna Mintu Caam nga xam ne jigéen la waaye ma nga ca Ndakaaru doon jàmbar lool di dox doxinu Baye Fall ba ci ba ci njabootu boppam ji soxna Fat Bintu Puy soxna maam Ami Mbàkke ñoom ñëpp màggal gi boo ñëwee bu ni la ñii ay soxna sëñ bi la doo da nga naan déedéet dañuy takk seen ndigg nekk ci biir waar bi te loolu moo tax ñu naan Baye Fall ndax Baye Fall moom jëf rek la liggéey euh, loolu dafa am solo mu mel ni suñu mbokk baay Fall yi nga xamante ni nag maanaam dañoo nekk ci wàccaay ji nga xam ne fi mu ne nii euh, Sénégal gépp waxuma ñi nekk ci diaspora bi mais jëmmi Sénégal ñi ne fi mu ne nii penc moo xalaat ñu ngi fay dugg am na ñoo xamante ne dañuy takk seeni rajo di wër ci dëkk bi di yaatal liggéey bi di fàttali nit ñi ne sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou màggal gi ma ngi koy jafe ca ndindik sëñ Fallou du jeex ne ni foo xalaat ci Sénégal rek gaañaa fa kenn ku ci nekk nag di liggéey rek yooyu mu doon loo xamante ni euh, sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou moo ñu ci nàmpataal moo ñu ko wàll ndax moom li mu xam mooy ma rek mm. waaw du kër yi mu sëñ Fallou léppam liggéey la léppam liggéey la sëñ Fallou mii laal na ko sànq ci biir waxam daat nii leer di leeral nii sëñ Abdou Karim ay kaas sax yi nga xamante ni moom la gan yi war a moom moo naan fii nangami kaas na fa dem nangam moom loolu da koo fekke moo tax mu mën ko wax te lool noonu la demee lal sax lal lal da koy defal gan te loolu doxinu Baay Faal la lal bu màggal fi mu ne nii démb rek ci mujj daf maa fekk fii ci nag yi ñuy defar baas yi ndax nag yi da leen di defaral baas bu ñëwee xool liggéey ba mu yàgg daal dem ana gaañ ma ne ko gaañaa ngi fi mu ne ay ca waay dox tuuti am dong bu mu gis nga xamante ne dong boobu moom dafa am lu mu féete ci biir kër gi mu ne ko diw dama bëgg ngeen ngeen góorgóorlu fi mu ne nii màggal gi amul ci lii laa féete woon de léegi ci lépp la ñuy féete gis nga bu mu nekk ci ci ci ci wàccaayu màggal gi loolu dafa am solo loolu nag ñun ci lañu ñu te loolu it wax dëgg yàlla yàlla dafa dogal bi nga xamante ne sàncagut fii nekk ndakaaru loolu la doon dund ak ñun doxinu Baye Fall liggéey rek boobu yoon wi bariwu ci wax jëf rek te loolu it dafa am solo ci jamono bi ndax jamono bi wax bi dafa bari lool euh, jëf ji mi ngi am waaye wax ji da ko ëpp euh, te bu baax lool ci nag ñuy bàyyi xel ndax ñi nga xamante ni lu baax rek leen ñor ñu ci xëy di ci gont di ci dox ñooñu nit ñi ràññe nañ leen waaye jëf yooyu dañ ko war di fesal di leen tudd sëñ Abdou mu Sëñ fàllu mi ngi liggéeyal sëñ Touba liggéey bu rëy. barke Seexul Xaddim boo ñëwee ci Touba boobu gi barki Demba Ndiaye ñëw nga fa ñu di ci am luñ ci doon tënk. waaye boo fa ñëwee xam ne kii mi ngi liggéeyal sëñ tubaa te ña nga xamante ni ñoo fa nekk fi mu ne nii man mii ak samay morom ñun ñëpp ndakaaru lañ juddoo fa la ñaroo fa la ñuy jëlee fa la ñu nekkoon ak moom nekk ak moom di liggéeyal sëñ Touba di liggéeyal sañ tubaa ek ba si fii Ndindi ba jàll Touba Bogo yooyu mu doon ay mbir yoo xamante ni dafa am solo ci di ko tudd. sëñab du Karim mu sëñ Fallou léppam ci yoon wi jëf la ak ay teggiin sëñ Galas wax na sànq ci war mooy dëkk bi loolu euh, sëñ du Karim ku na xam na bu wér ci ne moom léppam loolu la bërki demoo njaay rek bi ñuy yeesalaat dëkk bi di defaraat xaar ñu ñëw ci buntu këram moo demal boppam ba ca ñuy doxal loolu ne leen man sama buntu kër bis boo leen fay ñëw na ngeen fexe ba na ngeen ma woo téléphone ne ma ñoo ngi ñëw dinaa leen toggal añ te boo leen ñëwee ma ànd ak yéen ci loolu li ma leen jub loo wax ci loolu booy sëñ Abdou Karim sëñ Fallou moom léppam léppam digal la waaw ku amuk taalibe la loolu nag loo ko yàlla fayee njabootu boppam gi amul kenn koy gis muy dangi dangi wala muy déedéet waaw ma rek waaw mu yor ci ay jàmbaar yoo xamante ni it ma boobu ñoom fi ne nii kenn ku ci nekk yaa ngi ci sa ci sag wet di waaj di ñëw te jaadu na ci ñu bàyyi leen leen xel maa ngi koy tudd léegi léegi waa université yooyu euh, sëñ faalu Galas Diattara tudd daf ma dama leen a bëggoon a fàtte. Mm. te loolu moox moo ci nekk. Mm. ay jàmbaar lañ yoo xamante ni. Mm. université googu sëñ bi fekk si na leen fa ñaari at jàpp ñett ñu doon ay xale waaye lu baax rek leen ñor. Mm-hmm. seen yëngook seen dal yëpp sëñ du Karim mu sëñ Fallou la. loolu dafa am solo. ku mel ni waaw ku mel ni soxna Fatou Bintou Boye. mu mm-hmm. ngi yor benn kuréel goo xamante ne dañu ngi tudd tarbiyatu wal aada bi. seen kuréel gi sëñ bi moo tuddee yar ak teggin. Mm-hmm. am am ay góor yàlla ñuy dox du Baye Fall ne ci liggéey bi loolu mu mat a bàyyi xel ku mel ni sëñ Mouride mbay mi ngi boot ñoom Fakataas ñoom ñoom Mohamed ñi ñoom Mamadou Diawara ay jëmm lañ yoo xamante ni maanaam nuróowuñu ak ñun bu bu nii ci nii ñu la xasaay waaye sa doxi lépp ci ak Baye Fall la fi mu ne nii ña ngay waaj ña nga ca waaj tay gu xit ma rek sëñ du Karim moo leen wàll jikko jooju loolu dafa am solo ci ni ko ñu ci ñu koy waxante soxna May doomu sëñ Abdou mu sëñ fi ne ni àdduna bi yëpp fu ne dem na fa ngir lan waajal màggal gi fi ne ni bu ñëwee mu am lépp lay teg ci kanamu sëñ te lépp lépp ci màggal gi lay dem amut lenn loo xamante ni dafa def boo gisee nit ñi di sawar ci ñëw dalal sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallou mooy wàccuwaay bi mu leen di jox a tax mm-hmm. sëñ Abdou Karim dafa fonk nit li sare wa fi safa maa jënd li mu yore li mu yore abalewul mayewul saraxewul loo tollool rek mu jox la loolu diwle rek benn waxuma ñaar ay nag laa bëgg indi léegi damay jënd nag mën naa dem bismillah bismillah non man damay maake damay jënd da yore lu ñuy jaay damay jënd man ñaanuma abuma saraxuma damay jënd damaa yor sama njëg te sëñ Touba moo ko wax ne ci yow laa ko mën a jëndee Mbàkke ku ku kenn xam li ma li ma li ma sëñ Touba ne ma demal fële loo liggéey la loo liggéey la Mbàkke li nga yor kenn joxu la ko da ko liggéey kenn ko da nga ko liggéey man nag damaa gis li nga liggéey man ma topp ci yoon boobu damaa bëgg liggéey li ngeen damay jënd damay jënd nga maa jaay nga maa jaay te sunu borom di la may du la gàntal kon du nit moo lay gàntal damaa dama bëgg ñu xam ne jëmm ji toog bu ñu ko royee àdduna yëpp bu ñu ko royee yëpp lépp jaar yoon. ndax diglewul lu dul lu baax. ndax lu dul lu baax. xoolul lu dul lu baax. doxul lu dul lu baax. doxul lu dul lu baax. waxul lu dul lu baax. jëful lu dul lu baax. dama koy wax ñëpp. dama koy wax ñëpp. ku ma xam dama naan la. xam ñàkk solo si. ku ma xam dama naan la sama jëmm ju ñàkk solo si. bu ngeen may gis di am dara ci man. bu ngeen may gis di am dara ci man. wala ngeen di yëg ngeen di yëg dara ci man lu baax. duma ci dara Cheikh Abdoul Karim Mbacké la. ka nga xam ne. ka nga xam ne. dafa fekk ñu bi dafa fekk société bi ñu sànni ko. ñu sànni ñu sànni ko. société bi sànni. waaw. ndax dafa am ñi nga xam ne tey. dafa ndax dafa am ñi nga xam ne tey. dafa am fu mu leen jëlee. ku bokk ci société bi buñ la jegee da nga naan ñii ku bokk ci société bi bala ñooñu jegee da nga naan ah ñii de soxlawuma leen. moom sëriñ bi jël leen. defar leen defar leen ba ñooñu defaraat ba ñooñu defaraat defaraat ñeneen. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla foofu fii tolluwaay bu kan moo fi toll tey. kon kii nañ ko jox lépp. mu defar lépp. ñun li suñ taxawaay rek mooy ñu gën a jàppal sëriñ bi xam naa loolu rek la ni mën a wax lu sori nag sëriñ bi nag tudd ngeen mbër yàlla koo xam ni mooy kenn ko amul ñaar ndax jëmm de boo koy seere damay dégg sax nit ñi naan taalibe matul seere ci sëriñam loolu sax olof da koy wax waaye nag loolu am na geneen wax goo xam ni mën nañ ko ci teg mooy taalibe bu fekkee li muy gis ci sëriñam moom si teg teg ko ci bëtam tamay wax dëgg def dëgg war naa mën a seere ci sëriñam kon lii ñu gis ci sëriñ bi war nañ ko mën a seere kon loolu rek la ñuy wax sëriñ bi saa bu tuddee rek ñun day mel ni dañ fee nekkatul kon liggéey bi daal ñun la ñuy soññe rawatina ndongo laxsaay yi ñu gën a jàppaat sëriñ bi ndax ginnaaw boo sëriñ bi ba ko suñu borom baaxalee muy mbërub yàlla di mbërub sëriñ fa di mbërub suñ tubaa sëriñ tubaa dañ cee jamonte ak moom ñooñu sëñ tubaa mooy seen cër ña jamonte ak sëñ fàllu ñooñu sëriñ tubaa sëñ fàllu mooy seen cër mooy ku mel ni sëriñ góor mii daane sàng lii wax sëñ Fall yaatu na lool waaye ñun ñi nga xam ne ñoo jamono teg sëñ Abdou Karim Mbacke ñun sëñ Abdou Karim mooy sunu cër koy cëroon nag taw mu doon kilifa kilifa baax na lool waaye kilifa gu mat daa am solo kilifa gu mat nag kilifa gu mat sëkk moo am solo te mooy sëriñ bi ndax gis naa mu yenu ci mbaax loo xam ni neew mu amut de waaye jafe na lool sëriñ bi nit mun laa tuddal mbaax te doo muñ ni mu mën a muñee doy na kéemaan ndax am na ñoo xam ne sax di ngeen woote ak muñ te fekk ni amunu kat nu muñ ndax olof Njaay danaan muñ dëgg mooy ñu jox la kaas bu weex xat nga koy naan te doo gaññi loolu mooy dëgg dëgg muñ kaas bu weex xat bu ñu la ko joxee boo ko naanee gaññi dëgg la muñ nga waaye sa muñ néew na doole waaye bu la ko jox tamit xaj nga nga naan ko te gañoo wane woo benn déggi-déggi loolu mooy dëgg dëgg muñ te koo koy sëñ Abdou Karim dama koy gis ci mbooloo bi nu nu nit ñi baree nga xam ne lu nu bari bari bari at as bi as bi mu am nga xam ni waroon na am heure yoo xam ni ci lay war a di jotaayu ak murid am heure boo xam ni faaw ñu may ko ko muy noppalu waaye sëriñ bi bu ko nit ñi xalaatee sax dafa mel ni bëgg gi suñu borom bëgg jaam yi dafa mel ni dañ ko këppaat ci moom day bàyyi nit ñi rek kenn ku ci nekk sa ajo la indi dana la toppatoo ba fajal la ko te ni muy faje ajo dafa neex dafa jafe moo tax mbaaxam neew ma amut waaye jafe na koo xam ne boo ñëwee mu toggal ay xéwal defar barab bii dégg naa mu ne barab bii bëri na saal yoo xam ne yëpp maanaam moo ki teen fay def ak fauteuil yeeg matelas yeeg lépp lañ fay def bis buñ ko indee toog gi mu njëkk a toog ngir xool ko ndax bu ke bu benn taalibe ñëwee mbaa dina baax si moom wala du baax si moom maanaam saytu kooku mu koy njëkk saytu bis boobu la fu gëj te su ko neexoon neen mën na si noppalu te loolu koo ko wax du ko xam te kër gi boo fa duggee xam ni luy nit di jaay rek am na fi waaye lenn waroo la ko rek mooy lu dul bëgg nit ñi te nit nag ginnaaw ba ko yàlla sàkkee da ko bëgg ñi baax yàlla bëgg na leen ñi bon sax yàlla bëgg na leen ndax yàlla nega moo leen rek bëgg na leen sëñ Abdou Karim nag dasee yenn loo xam ni loolu ku ko si jéem a tamit da nga dul dem ndax jagleel suñu borom la kon mbaax googu sëriñ bi yenoo loolu nit ñi war nañ ko xam ba gën kaa jàpp fonk ko sakk sakkanal ko tamit ne nit ñi sakk sakkanal sëriñ bi nga xam ni mbooloo lu mu bari bari bari rek bu sëñ bi nee nangam rek yow nanga nga dégg lool ndax màggal nga ñëw te day bari nit te sëñ bi dafa tagoo ci coono loo xam ni doy na kéemaan kon mbaax googu sëñ bi tagoo li ko gudd li ko gàtt lépp bëgg jaam ñi ak bëgg suñu borom ak rasulullaay fonk maam ju baax Cheikh Mour Bamba doyloo baam ju baax ji muy Sëriñ Fallu loolu nag ci leen ñi ñaaxaat Baay Faal yi ñu gën a taxawaat tagu bañ a yokkat bañ a déggi-déggi ndax Baay Faal bu xas ba laxasaayu bul xool dara nañu xool sëriñ bi rek sëriñ bi ba mu laxasaayu ba li ba mu takkoo di liggéeyal maam ji ba léegi mës tekki ñun lu ñu xool rek na doon sëriñ bi nan fexee takku màggal gi nan nag yi bari na millions yi bari lool teraangi dafa war a bari war na noo jox sëñ bi ay millions ba sëñ bi na baax la koo xam ne loo ko jox mu delloo ko yàlla kooku mat na di jox te kër gi ku fi ñëw na nga bàyyi xel leen borom kër gi jëf jëfkat la mooy ne ko suñu njëriñ boo gisee bàyyi faa lenn boo gisee seen jëf gu takkarnaasi yi da ngay jàpp ni sëñ bi leen laaj déedéet sëñ bi laaju leen bi dafa yor mbaax goo xam ni buñ la ko pigiree gi ñaa ci dere yi boo génnee kër gi boo yoroon àdduna li ci biir da koy indi laa sëñ demaat laxasaay bari bëri loolu ko waral te loolu mi ngi jóge ci sëriñ bi nañ leen jàppal sëriñ bi ngir jëmi sëriñ Fallou gën a doxal liggéeyam bi ñu nag ñu ngi waayal màggal gi waaw ñu waaye màggal ci nag yeeg gilim ak millions yi ak lépp loo xam ni bëgg-bëggu sëriñ bi la rek ñu ngi si sëriñ Abdou Karim nag ñu ngi koy jéggalu bu wér a di ko tuubal ci kàddu yi yàlla na gudd fan ci darajay Cheikh Modou Fall jërëjëf nag jërëjëf